may li ci yéene kaay yi yéene kaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf njàngum réew mi jafe-jafe mooy li ëlëm yéene kaay yu bari ñu xëyandool ba tax ñu xëy di ko waxtaane yëral xët mu njëkk Sud Quotidien nee nañu ñaari weer ginnaaw bi école bi ubbee ak léegi tey la ñu gën a am ak jaaxle ci ëllëgu école bi ak université gi li yokku jaaxle gi Cheikh Mbaw njiital COSYDEP mi ngi koy wax ci Vox Populi ubbil yéene bi bokk na ci élection représentativité syndicale yi ñu jëm bokk na ci Coupe d'Afrique football di ñëw ak campagne a am bokk na ci yi syndicat Tribune gis na éducation beeg enseignement bi ci réew mi ñoo ngi ci commenté buñ ci jugul xitili ko ca faatu ca la jëm ndax gouvernement bi mi ngi dëkkee jële engagement yu mu dul def jàngalekat yi ci réew mi doyuñu yi fi am a kës néew ca bari ña ca politique ba leneen li jaaxal journal Tribune ci wàllu njàng meeg mi mooy milliards yu bari yi état bi ne mi ngi koy dugal ci secteur éducation bi fan la feeñ Seex Mbow njiital ko si mu nar a mooy ñu bari ci étudiants yi doxee fa bàyyi jàng élection syndicat yi di ñëw élection présidentielle yi ak coupe d'Afrique bi doon na yoo xamante ne ji COSYDEP jàpp na ne bu ñu moytul mën nañoo sooxeel année scolaire bi ñu dëgg tànk yu dëgër dem ci journal Libération banque bii di Crédit Mutuel du Sénégal la fa xew Libération ne nañu jéggi na dayo carnage financier organisé la ca agence Crédit Mutuel du Sénégal ba ca Malick Sy am na fa téeméeri ngi ñuy wax ne opération bu ca nekk ku ca nekk ci ñoom daan nga jot deux cent mille banquier bi leen ko doon fay di Moussa Sagna da ko daan présenté ni ay aide financière bisu en yi ñu déposé woon ci crédit du Sénégal ne garantie libération nee nañu ginnaaw bi ci la ñu xamee ne du ay or yu baax ay faux bisu en or lañu agence crédit mutuel du Sénégal bu Colobane ak bu Fass libé nee nañu ñoom it mucc ñu ci scandale bi ci crédit mutuel du Sénégal bu Tivaouane am na fa lu toll ci huit cent dix millions yu fa réer ne mes ne tax syndicaliste yi di sàkku ko ba mu leer crédit mutuel du Sénégal bu Wakam syndicaliste ya nekk libération ne nañu ñoo nga fay siiwal crédit illégal bu toll ci milliards 600 millions direction des am na fa benn waay boo xam ne nee nañu jarbaat la ci directeur général bi moom it ñoo ngi koy tudd ci njublam gu am ca carte carburant yi coow mbambak toj toj ak tooxi duna yi am ca crédit mutuel du Sénégal journal l'info ne nañu moo waral liggéeykat ya fa nekk Cissir ministre des finances bindu ko ab lettre wax ko ca la xew ca kër di yàqu kër geneen gerte gerte liggéeykat ya fa nekk danañu xëy suba ba ngoon jot serwe duñu ko def ndax gisuñu lu ñu def njiital Sonacos dikki bi li Touré yéenekaay bi mi ngi ñuy waxit ne war naa gise tey ji ci suba ak syndicalistes yi ca kër ga coow leneen mu di coowal fonds occulte di koppar yu kenn xamul fan la jóge l'observateur xëy na dañuy wax ne Ousmane Sonko mi ñu koy tuumal fan yi da koo mujj rek waaye njëkkewu ko ne bu ñu fàttali ko Abdou Diouf doon na fi tuumal Abdoulaye moo jot wàllam ak tuumay financement bu toll ci 12 lu ëpp 27 700 doomi Afrique de l'Ouest wàcc nañu ci Europe ci diggante janvier 2023 ak octobre 2023 te ñoom ñëpp ci tukki bu jaaree ci yoon ca la ñu jaar maanaam immigration irrégulière Le Quotidien moo bind xibaar bi ci xëta mu njëkk ba dañuy wax ne ci waa Frontex ci la ñu jëlee xibaar bi dolli na ci ne ci migrants africains yooyee wàcc ci Europe réewum Côte d'Ivoire moo ci ëppale réewum Guinée topp ci suñu réew du Sénégal soog a ñëw abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su